siyaare lu bare ba sëriñ Seex ah, di nuyu mbooloo mi ñu àndal yëpp am naa ñëw rek di la defal présentation ñuy àndal après ma jox président yi ñu jottalee liggéey bi ñun ñooy association bi ñuy wax INAPAD inapat mooy union nationale pour l'agriculture durable dajale ay béykat ay sàmmkat ay nappkat ak ay transformateur ak ak ñiy euh, environnementaliste ñooñu la INAPAD dajale yàlla dogal na ni INAPAD dañ ne Sénégal gépp 14 régions yëpp am nañ fa 40 50 départements yi am nañ fa cinquante 557 communes yi ci 500 yëpp ña nga fa xam naa mbas mi moo ñu téye woon ba dajalaguñ communes yëpp waaye ma dañ ne Sénégal gépp waaye INAPAN nag dafa euh, séddalikoo euh, barab bu ne dafa am ñu fa ne fii ci département Mbacké man maa ko fi jiite ak soxna Jóoba waaye ci ci région Diourbel bi président docteur Cheikh Gadiaga bii moo ko jiite ci président national bi mooy kee ñuy kee ne mu ñuy wax saa Sadibou Cissé moom moo nekk Mbirkilaan moom sax nag bu ñu doon wax euh, INAPAD moom moo ko jur ndax moo njëkkoon a sos association bi tuddi ko APAD bañ demee ba waa Mbirkilaan gis ci seen bopp ne réussir na ci lañ ko yaatal def ko national ba mu egsi ba fii bi mu ñëwee ba fii nag ginnaaw nga xam ne yàlla daal Sénégal dafa séddalikoo ci ay ay ay pàcc pàccaan lu mel ne li ñuy wax bassin arachidier ba dee waar ñuy wax euh, wala fasile ak yu mel noonu. boo ñëwee Bawol nag ñun dañuy wax euh, région de transformation fii ci Touba ak Mbacké euh, soxna yi ñoo fi nekk yor fi transformation lépp lu ñëwee lu ñëwee lu ñoree ci Sénégal ak ci sous-région bi fii ci Touba lay njëkk a ñëw bu ñëwee ñun ñoo koy transformé tambalee ko ci gerte bisaab daqaar jinjeer lu mu mën di doon am na fi sax ku àndaale euh, jinjeer bu ñu def poudre mi ngi fi waaw mi ngi nii lii lépp jinjeer bu ñu def poudre la muy ñu jàmbaare nag ay ay ay kilifa yi diine rek ñoo fi ne ñii fi nekk ñëpp mënuma lim ñëpp waaye ñëpp sët sëñ bi rek njabootu sëriñ bi rek soxna Jóoba nekk seen kanam euh, defe naa soxna soxna Sukkay Mbàkke waroon naa ñëw waaw soxna Maria bu suñ Murtada waroon naa ñëw soxna Mariam Jang waroon naa ñëw soxna May moom suñu Abdou soxna May Daaruk sëti sëriñ bi rek daal ñoo fi ne takk seen digg di liggéey nag di ay jàmbaar yu jàmbaare lool lool ba jégg dayoo ndax ñoom ñii ñëpp amu kenn koo xam ni nguur teg na la loxo wala kenn teg la loxo ñoom ñooy jaay seen i or seen yëf seeni pakk ak lu ne di ci góorgóorlu ba lii lépp ñoo ñu koy def tey nag ñu amoon pas-pasu ñëw jaayanteeg sëriñ Touba ci liggéey bii ñuy def yëkkati lii ñu yëkkateeg su néew wan ko ko ngir mu gisal ko boppam kon bu ñu ñëwee mu boole ñoo yow mel na ni gis ne lépp bi ma bi ma lay tooñ naan bi may tooñ sonn Jóob di waxtaane moom daf ne man gëm naa ne sëriñ sëriñ baa ngi gis li ñuy def lii ñuy indi mi ngi ci loxol sëriñ bi lañ ko teg moom lañ fi fekk tam léegi nag li ci des mooy a am na ay kaddu yu ñu bëggoon waxtaanee ak sëriñ bi ci wàllu euh, foire bu ñu bëggoon a def waaye loolu man duma ma président yaa ngi fi léegi nag euh, damay li ñuy ñaan ñun mooy sëriñ bi nañu ñaanal ci lii moom barkeel ndax kenn ku ne xam na ni yi ñoo ñu lim kenn mënu ci avancé ci ñëw ci transformation te jàmbaaral lañ ci waaye néew nañ ci doole ni koy ñaan mu ñaanal ñu ci te jàppale ñu ci. ndax xam nañ ni bu dee ci wàllu développement kenn jiituwu ko ci bu dee ci wàllu jàmm kenn jiituwu ci ndax gis nañ bi mu ubbee université bi defe naa bi muy bi muy tabax ci noppeeku yàlla na egg ak jàmm ba mu fekkee ko lu yàgg-yàgg faculté yi njëkk a taxaw alimentaire bokk na ca kon moo mel na ni moom li muy ñaan ne yàlla nañu sëriñ bi gàttandu moom mu ngi ñuy gàttandu kon man daal loolu laa ci eh, dugal ci kàddu rek. di sëñ moom. Euh, ci turu jigéen ñi ñëpp bàyyiwuma ci kenn nag ñun ñi ñëpp ànd ca bokk lu ñuy wut bëgg lu ñu bëgg muy jaamu yàlla ak bëgg sëriñ Tuubaa di ko liggéeyal euh, di liggéey liggéey boo xam ne nii mooy li sëñ Tuubaa gërëm mooy dunde sa ñaq ñu fas ko yéenee def ci ñaan mu sell ci ñaan lépp luñ ci am mu àddee sëñ Tuubaa génn ci maa ngi wax ci tuuru ñoom ñëpp nag di sant nag bu baax waaye nag di sant sëñ Mamor ndax sëñ Mamor day sunu mbokk moo xam ne nii dafa am pas-pas lool te li muy def mu bëgg ko ci yéene ko day def sax ba nga ba nga yërëm ko yow ne ko yow toogal ñu xam ko ñun ñëpp kon nag ñoo ngi koy ñaanal bu baax daal Mbàkke yàlla gën koo jàppale ca di la wax ne lii ñu joxe ñun jàpp na sëñ bee toog moom la ñuy waxal. ndax te sa jëmm ji def nañ ne moo si taxaa mooy toog ki moo si muntaxaa sax nag sa pas-pas ak sa bëgg ak sa yéene sa sa ak sa bi ñu xam ko bu wér kon nag ñun bu ñu jëlee sunu àddee teg sa loxo dafa mel ne sax ñun moo gën a si muntaxaa teew ndax boo toogee moom jotal dañ koy jotal mën naa am bu mbooloo ba nekkoon sax doog duñ ko mën a jotale noonu kon ñun amuñu lu sant rek la ñuy def ñu bëgg na nga jotal ñu sëñ bi suñ lii ñuy def euh, mu barkeel ba luñ ci bëgg a def ñu def ko ci ñu toog ba ñu ñii fi toog kenn ku nekk sa sa unité dox ba loo ci bëgg a def ci lu baax nga di ko ci def te nag lépp nag sëñ bi la nekk kuy ñaan moom boo ñaanee sëñ bi ñàkkoo kon nag ñoo ñu ngi ñaan daal sëñ taxaa ñaanal ñu suñu liggéey bi mu barkeel waaw ca barke moom fi lépp xaj. mën na comme ni ko sëñ Maam Moor waxe ak sëñ. soxna Njóoba dañ ma sas sasu rëy dénk ma lu toll ab région ma jiite ko ci wàllu mbay wàllu transformation wàllu environnement ak wàllu élevage mu yën bu diis waaye xel dal na ndax ku ñëw ba ci kanam sëñ Muntaqa donte sax fekkuñu ko fi waaye ñu fekk fi ak njabootam mel na ni fekk nañ ko fi kon oyof yem bi mel na ni oyof na ci ñun ndax xam nañ ni di nga jàllale suñuy doléance ci moom te dinañu ñaanal te bu ñu ñaanale rek dina oyof may dama bokk aussi ci benn association buñ ñu tuddee association des juristes du Sénégal maanaam nga xam ne mbootaay gi Afrique yëpp la bokk mu ñoo ci bokk waaye man section Sénégal laa bokk dama fee ñëw yàggut ànd ak président Ogo Seck nga xam ne moo jiite juriste yi ñu ñëw sëñ Mountakha dalal ñu ñaanal ñu ci association boobu ñu gis ci ak coppite gu rëy gis ci avantage yu rëy ndax dafa am yu doon mébét di def ay visioconférence di joxe ay cours dans le monde entier bañ ñu koy laataan tàmbali dañoo ñëw ci sëñ taqaa fii la ñu dalaloon néeg bi nekk fii boobu sëñ aboo ngi fi bi mu ñu recevoir fee ñaanal ñu yàlla dogal na loolu lépp réussir nañ tey dañuy joxe ay cours damay nekk ca mbili def visio conférence di joxe ay cours adduna bi yëpp di ko seetaan kon loolu dañ ci sant yàlla bu baax a baax di sant sëñ Muntaxa lii nag muy lu rëy rëy loo xam ne wax dëgg yàlla ah am nañ yaakaar ci moom li nga xam ne moo waral inapaat nag ak avancement am ak fi mu toll loolu dama koy bàyyee président national mi président Sadibou Cissé mu wax ko waaye man daal li may mujjee rek mooy ak cant ndax lii cant gu rëy rëy la mel na ni sëñ Muntaxa teew na kon damay daaneel kàddu yi fii rek. INAPA nag kuréel la boo xam ne dafa bëgg a demal boppam ndax dañ ne lépp duñ ko bàyyee état buñ ko bàyyee état wuurt mbay mi boo ko seetaanee état wuurt ndax man ci état bokk naa ci wax chargé de mission la présidence la vice président conseil départemental la xam naa bu baax li may wax. ci ñoom ci laa bokk waaye mbir doo ko sa mbir booy dundee. bu lay yóbbu ci kanam bu lay taxa nekk doo ko bàyyee jàmbur da koy saytu téyel ko sa bopp lépp lu ñuy def nii nii alalu jàmbur nekku ci alalu état nekk sunu alalu bopp ñoo ci nekk ñoo ko cotiser ñoo koy joxe ñoo koy ñaq lépp lu ñuy def depuis boobu ba léegi ëpp na ñaar presque mën naa bañ commencé def activité ba léegi ëpp na 30 million yu ñu ci dugal alalu kenn dugg ci suñu alal la lu ñu daal lu ñu tax a jóg nag mooy amal suñu bopp capital suñu capital semencier bopp mooy suñu jiwu bopp ci gerte ci jiwu yëpp amal ko suñu bopp duñ ko dépendre ci kenn loolu nag ñu ngi ciy jéem looloo waral mu nekkoon ci Saalum ba far ñëw law nag ci Sénégal ñu ngi ciy jéem di ko commandé ISRA loolu nag lañ ca am ci production day ñëw ci transformation rawatina nag Touba loo bay ci Sénégal 70 pour cent bi Touba lañ koy transformé. Touba ak dakaar te Touba sax presque mën naa ne moo raw kon loolu nga xamante ni ñu ngi koy def jëmale wuñ ko lenn sëñ bi lu dul topp yoon yi nga xam moom la Serigne Touba tegoon jaam ñi rek ñaq jëriñu liggéey ngir bu kenn jaay ngorom boo liggéeyut ñaqoo jëriñoo bayoo amoo loo dundee sa ngor danga koy jaay rek da ngay toppaan rek waaye boo liggéeyee di bay di dundee kenn du la yàpp te di nga ànd ak sa diine ànd ak sa ngor te loolu ci jaamu yàlla la foofu nag la INAPAD tànkam. lépp lu ñu am rek ñoo ko defal suñu bopp topp nag ci ndigalu yoonu sëriñ Touba parce que mbay kenn mënu cee dem bàyyi yoonu murit la ñuy bay ci Sénégal pépp te foo mënti dem la ñuy bay ci Sénégal lu yoonu murit waa sëriñ si bay sëriñ murit yi bay ci senegal kenn du ko bay te lépp lu ñu bay rek dañ koy jox jaam ñi du ko dundee te loolu lu ñuy def nag ñun lu ñu ciy def mooy bu ñu paree transformé ko dundee li nga xam ne moom la ñuy bay ñun ci loolu lañ nag dundee lu ñuy bay bañ a lekk loo xam dañ koy jéggaani loolu nag lañ bëgg yee doomu aadama yi waxtaan ci nit ñi ba nga xam ne lépp ñu bay ñu transformé ko def si suñuy boutique commencé nañ def boutique bi daara Touba dina am boutique la ñuy transformé ci cere ci ceeb yi ñuy bay ci àll bi ci yooyu yëpp bu ñu ko transformé indi def ko suñuy boutique fexe ba suñu membre yi di ko di ko jënd di ko dundee di nga nekk lu sell di nga lekk lu baax moo gën ngay jéggaane meew mi man barki dem seetlu naa lekk naa benn meew boo xamante mais ba léegi daf may def palpitation te ba ma laajte médecin dañ ne ma meew loolu du meew dañ ko transformé comme meew kon ñuy lekk 80 pour cent bi Europe lay jugee te lay jugee Europe ak yeneen réew yi du nekk ñam bu baax moo tax nit ñi néew doole moo tax nit ñi di am tension moo tax nit ñi am ay ay AVC ay feebar yu bon yëpp ci ñam yi lay jugee loolu nag ñun buñ ko teelee xam ñun waa INAPAT lañ jublu mooy bay li nga xam ñoo koy bay si suñu cosaan gi transformé ko dundee ko mu am ci wér yaram am ci koom loolu moo tax INAPAT jóg ñu doon sàkku ci sëñ bi ñëw ñaanal ko xam naa na am comme ni ko soxna Ndiob waxee xam na ko. waaye dañ doon sàkku ci moom mu ñaanal ñu te gëm nañ ne bu ñu ñaanalee moom mooy Serigne Touba fu ñu bëgg a dem dañ fa jëm te leen taxuñoo jóg rek pour développement wu Sénégal ak suñu développement wu bopp nag voilà ak suñu wér-gu-yaram loolu rek moo ñu tax a jóg sëñ bi. mu ne membres yi ñu ngi tool tey ti ci 19 842 membres ci Sénégal ci 45 départements yëpp loolu nag bu ñu dajalee seen koom rek am naa yaakaar ne danañ am auto auto indépendance kenn du ñu euh, defal mën nañ defal suñu bopp lépp. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. delloo leen am nuyoo nu mu Ah, di wax mbégte moo am sama bopp man ci jotaay ba noppi bala ma jàll ci mbégtam sëñ bi ndax jotaay bi sëñ Mamor wax na ma ko ay yoon am ci yitte lool ñu di ci ñu doon ko ñu doon ci yëgoo bu baax ndax di seet nuñ koy tërale ba mu mën a gën a yaatu ba ngeen mën a gën a waxtaan ak sëriñ bi waaye defe naa président wax na ko léegi amoon jataay ba toll ni ak sëñ bi doon yomb luñ ko bëgg-bëgg bu dee noonu nee na mën naa yaatu bu yaatoo ban xam lépp nag ñu ci luñ mën a wax sëñ bi ci wét te ci benn man ngeen ñëwaat ñu waxtaanaat ak sëñ bi bég bu baax ci sama mbokk yi ngeen àndal soxna Njóoba soxna Baali ak bokk ñi fi daje ñëpp sama njaboot lañ rafetlu rek xalaat bi ak bi ndax lii dafa bokk ci li nga xam ne mooy tax réew mi mën a dem boppam balaa réew mi mën a boppam kenn ku nekk day jéem mën a yor këram ku ne mën a yor këram bu noppi mbooloo mi ñu di ko defaat ay groupe bu ngeen defee ni seen seen groupement bi jéem li nga xam ne day ñor ci réew mi ñu ngeen di ko soppiwaat ñu di ko jariñoo ci réew mi man lu may yàgg xalaat la lu ma yàgg bëgg la lu may yàgg gëm ne moo mën a développer réew mi la itam ndax réew mi tant que lii amut mën nañoo mën nañoo gëm ne amaguñ indépendance amul fekkee lu ñuy lekk lu nekk ci tubaab yi lay jóge ñëw dinañ la kon tubaab yi ñoom ñu contrôlé ba léegi ci lépp te duñ mën a xam itam nag na muy demee maanaam dañuy daal xel di jëfandikoo rek waaye li ngay jëfandikoo lépp doo xam lu mu doon mu nga béy ci réew mi nag sa soxna soppi ko andil la ci agri bii soxna Njóoba jox ma ko ma jëfandikoo moo gën a dal sama xel ki lu bari jóge ci àll ba kon mbooloo mii gëm naa ne. bokk nañ ci li nga xam ne moo mën a soqali réew mi ma gisaat ci itam nag jom ak Pastef ci ñi koy jéem a def ndax kenn ku ne dee xaar ñu dimbale la wala ngay xaar toog di xaar financement bu mag xaalis bari nañ ci sa loxo daanaka doo mën a def dara xaalis bu day ci sa loxo xaalis baaxul da ngay gëm moom nga daal di ciy bëgg a si su moom moomu ko boo jógee lu tuuti nag nga jënd sa mbuusum bisaab wala nga jënd say doomi limon wala say junni yar soppi ko boo jaayee njëgu ñaari junni boo ko defaroon jaay ko am ci benn téeméer sax mu wóoroon téeméer bi law na la da nga xam fooy def téeméer bi da xam noo koy jëfandikoo ba doo ko yàq loolu dana tax dem giñ bëgg a dem ci kanam ñu mën koo def danga jëfandikoo produit bu sell boo moom ci réew waaye ki koy defar dana ci def jomam ak yitteem ba liggéeyee ko noo xam ne. dana ko sellal te du yàkkamti ba di ci yàq waxtu boo yàkkamtee rek mu yàq day bëgg a dugg te yàkkamti nag mooy xaalis tàmm xaalis la xaalis bu jaar ci loxo yi dama ko dikk moo da ngay yàkkamti boobaa li ngay def dootu sell da nga ci def loolu moomut man di lay firnde te jaru ko te defe naa ne lii yoon bu ngeen ci nekkee ba ñu bari xam ko muy gën a yaatu dara gënu ko gaaw ci liy développé réew mi kon ginnaaw ay responsable rek ñoo fi daje ñu bëgg doon ay maire am xalaat yu rafet yi ak ay jëwriñ ak ay jëwriñ ci sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi kon gëm naa ne lu ngeen gën a lëkkaloo gën a jàppoo dana gën a yóbbu liggéey bi ci kanam te mën na nañoo dem ba réew mi yëg ci boppam bu baax te kat ñu ngeen gëm ne lii ngeen bëgg a def nii ñi ko xalaat bari na ñi ko yéene bari na ñi ciy yëngu sax te yëgoogu leen ak ñoom bari na te bu yàggee mën nañoo yëgoo ñëpp wax wet gu nekk am na fa koy kóotu kóotu ci dara ñu yàlla def ci ñoom jam jom ak xalaat bu rafet ñu ngi kóotu kóotu ci dara ci loo xam ne gëm nañ ne dañ caa war a liggéey ñaq dund ci seen ñaq te loolu lépp dinaa duggaat ci seen filière bi yëngu ci loo xam ne dañ ci ñaq parce que yéen dundee sa ñaq woo mu sell ku am xalaat boobu ko ne rek yaa ngi ci biir mbooloo mi kon yaakaar naa lu ngeen lu muy gën a yaatu ñu bu gën a xam mën naa dem ba mbooloo mi am doole lool mën naa dem ba ñu bare bare bokk ci bokk goo xam ne boobaa dana may mbooloo mi doole ma gisaat it parce que bi ngeen def bëgg ñëw ci sëriñ bi président wax na ko léegi njëkkee ngeen daaru musi kilifa yi ànd nañ saa ak am na ñu leen bàyyi xel te gëm naa ne la ngeen gis daaru musi bu ñëwee tubaa day yokk ndax daaru musi mën nañu jàpp ne ab quartier la ci Touba wala dëkk la ci Touba waaye borom dëkk bi nag mooy mooy sëriñ Touba te mooy sëriñ Mountakha te sëriñ Mountakha dafa bëgg lu mel nii nit ko am jom am xalaat bu sell nangoo liggéey liggéey bi doon lu sell lu dundal réew mi boobaa ñaan ca barke rek la def te bu barke amee liñ ci bëgg lépp da ci am kon man maa ngi gën a fàttali sama collègue ak yéen bëgg leen ne wax ne ngeen jàpp ne kenn laa ko bokk ci mbooloo mi kon sëñ Mamour mooy sama jëriñ ginnaaw Mamour mu nga la sëñ Mamour sama jëriñ waaye danañ ciy dégg danañ ci déggante danañ ci gën a jàpp noonu sama wàllu bopp ci samay xalaat nga demee war a liggéey liggéey boo xam day bokk ci liggéey bi naa ci dégg sëñ Mamour la ci des dañ leen dénkal sëñ bi mbooloo mi liggéey bi incha allahu baabaay suñu borom bi dogal beneen jataay bu ñu amaat sëñ bi te gëm nañ ne suñu borom dana ko mas a dogal mën naa bañ a yàgg noonu sax buñ ginee gën ak sëñ Mamour donte tasaaroo ngeen jóg yombut saa suñ ñu dox ba jaar jaar jàpp na jataay bi mën naa amaat danañ ko wax sëñ Mamour mu waxal leen ngeen daje danañ fas yéen itam ñii lañ ko yóbboo ci sëriñ bi lu ko ci temps may suñ temps may na ko ci ak moom danañ ko leeral liggéey bi ni mu demee nii lu ci nañu xamal ko nekk mbooloo mi ñoo liggéey li gis naa fi lu bari bawal céréale GIE jàpp ànd liggéey lii daal ne ab caagri lañ defal boo xam ne lépp dugub la lépp noonu demee poroxaan céréale maam war ay <laughs> lépp gis naa fi gis naa li ñu defar ci buy la defar ci ñebbe lépp maa ngi ko fi gis lii nag mooy li am solo xam mooy suñ dundu réew mi waaye mooy waa réew mi bëgg taxaw seenum réew ba jariñ seen réew mi kon lépp dañ fexe bu ngeen ko cee waxaat sëñ ndax yii rek yu am solo yi ngeen def ko junjeer limon bisaab moo gën nga naan boisson boo xam canette boo xam ne xamoo fu mu jógee xamoo lu ñu ko defaree kon nag nañ gën a góorgóorlu lu baax rek kon loolu ñu leen di sant di leen ci soññ di leen xamal ne maa ngi seen wet en tant que membre nekkal leen ci sëriñ bi di jottali sëriñ bi lépp kon ni mu jële ñaan rek maire yi nga xam ne am nañ yéene jiite gox yooyu ba liggéeyal ci seen réew yàlla jàppale jot ci la ko jotee yàlla nañ ko mën a liggéeyal réew seen réew lii itam danañ ko yóbbu ci sëriñ bi danañ ko jottali danañ ko leeral sàkkul leen fa ñaan incha allah kon nag loolu rek moo ñu loolu lañ leen di tontoo sàkku ñaan suñu borom daal mu barkeel li ngeen di yëngu àggale yéen yi lépp lu ngeen ci bëgg mu yomb leen